Euh, euh, comment il s'appelle Juan Branco mu wax ne depuis très longtemps ñi ngi alerté mais par pudeur bëgguñu woon wax dans quel état se trouve Ousmane Sonko mais puisque état bi dafa dëgër bopp moom il donne la preuve que ni effectivement il il a été à quelques pas de la mort c'est Juan Branco qui l'a écrit mais yokk ci également que état wu Sénégal à commencer par le président de la République alerté na leen plusieurs fois sur cette situation ils n'ont ils n'ont rien fait mhm. est-ce que l'effet Juan Branco amul lu mu jouer sur ce qui est de se passer dans notre pays euh, si mun na <coughs> pardon mun nañu wax loolu euh, dans la mesure où euh, quelque part dafa amoon benn genre omerta mhm. ci li nga xamante ne ni Ousmane Sonko mu ngi ko doon dund ci hôpital principal mhm. donc ba loolu ci la ñenn ñi porox ndollu di wax yoo xamante ni quelque part day wane ne Ousmane Sonko lu muy wax ne ci la nekk nekku ci. Mhm. donc ma jàpp ne même si quelque part mun nañu wax ne euh, euh, euh, kii boobu communiqué boobu wala lettre boobu mun na jóge ci ñu bari. na jóge ci donc du ñu écarter pouvoir bi du ñu écarter opposition bi mais. Mhm. pour man li gën a plausible mooy. sénégalais boo xamante ni am na ci accès. Mhm. bëgg yeneen naataango sénégalais yi xam lu xew. xam lu xew. tout à fait puisque euh, ku lire lettre boobu ba pare. mais dootoo déglooti ñu naan la Ousmane Sonko la mu nekkee hôpital ay jàpp tele la. wala leneen ak leneen di nga comprendre que ne effectivement bu nekkee ne mu ngi réanimation c'est parce que dafa sonn ba nekk en réanimation. léegi nag xam nga tout à l'heure tu wax nañ fi ba tudd Bougazelli ne dañ ko jàppoon ñu ne dafa feebar ñu bàyyi ko. Hmm. te pourtant fii kenn mënu laa wax ne. kenn mënu laa wax ban feebar moo daloon Bougazelli ba mu gi bañ génne ko ci kaso kenn mënu la ko wax dañ naan la daal puisqu'il était diabétique dama feebaroon mi ngi mi ngi expliqué sànq ne de feu wax seen i wax économique la léegi ñu ne feebaru Bougazelli boobu kat mhm. àndul ak dencam ci kaso loolu la ñu wax mhm. te kenn amu ci preuve mais léegi preuve yi ni concernant Ousmane Sonko mhm. xam nga Bougazelli ba dañuy wax ne dañ koo bàyyi pour des raisons de santé kenn amu ci preuve. Mhm. mais bii am nañu la preuve xam nga Moustapha man bi may liiree lettre boobu dama ci teg quelque temps. Mhm. ma jot benn euh, euh, euh, ma gis benn vidéo bu ñuy wone Salif Sadio. Salif Sadio. mais ma jéppi état wu Sénégal. en réalité puisque Salif Sadio bu ñu mënee def comparaison bi mooy koo xamante ne nii lépp lu ñuy tuumaal Ousmane ko mhm. moom def na ko ba ñii am ci preuve. dootul tuuma buñ ne rebelle na bul ne dafa bëgg Casamance am indépendance am. wax na ko waxati ko. bu ñu ne acte terrorisme wala leneen leneen jàpp na fi suñuy soldat kidnappé leen. rey rey. def ko état wu Sénégal mais tey xoolal ban comportement la état du Sénégal am par rapport ak Salif Sadio ba muy defi vidéo léegi ñu ne la Ousmane Sonko mi ñuy jiiñ tey teg nañ ko loo xamante ni dem na ba pousser ko muy def xeex boo xamante ni mooy bi ko dese. parce que ñi na bàyyi grève de la faim bi bien que lu méttee méttee métti la mais Ousmane Sonko leen ko gën a xam moom ñu koy def. mais ban budul grève de la faim bi ban combat moo ko dese. bu doon tey jii nii jàpp nañu ko peuple sénégalais bi taxaw ne kii kat amul lenn loo xamante ni tegal nañu ko sur la table ba war a tax ñu jàpp ko duñ ci ànd mais Ousmane Sonko du grève de la faim. du grève de la faim donc tey état wu Sénégal wax naa fi ne. bi le juge si ba euh, Faye mhm. génnee sa décision wane na ne état du Sénégal justice bi ñu daan tànqalee naan état naan ñu force reste à la loi lu kenn xamul ñu koy wax décision juge Samba si Sabassi Faye bi wane na ne ñoom justice yëkkatiwu leen puisque bu doon justice bi ñu doon clamé moo leen yëkkati du ñu gis ab décision de justice dina duñ ko appliquer ci saa si mais bii également wane na ni ci lettre boobu nga xamante ni waa administration pénitentiaire yo jox nañ ko am euh, Aïssata Tall Sall que tey jii nii desub Ousmane Sonko ci kaso bi ci ñoom la dépendre ci ñoom la des puisque génnee nañ fi ay nit ne dañoo feebar kenn amu ci preuve bii nag Ousmane Sonko feebaram Sénégal yépp am nañ ci preuve donc bu desee une minute ca kaso ba te état de santé compatible ak détention boobu mhm. mais responsabilité état bi dafay leer naññi mhm. amul lenn luñ ci natable léegi nag mhm. man je crois que euh, de la même de euh, euh, de de de politique beeg yooyu. Mm-hmm. puisque Salif Sadio politiqueul. Mm-hmm. donc mu ngi def lu ko neex di rey ay soldaaru Sénégal dara fekk ko ci ba ma ngay def ay interview mag koo xamante ni dañu ne euh, euh, kii moo ko moo ko envoyé un émissaire de Embalo. Mm-hmm. léegi Ousmane Sonko bi nga xamante ni day politique deful loo xamante ni sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët ba juge mun koo condamné. ñu ne léegi day nekk en prison même bu nekkee ne mu ngi ci état de santé boo xamante ni critique na léegi ça veut dire quoi. Mhm. ça veut nit ñi Sénégal yitteelu leen mais gérer pouvoir bi moo leen yitte ak képp koo xamante ni yaa ngi koy xëccook ñoom ñu def la comme ennemi mais léegi nag est-ce que ñun dañuy jël suñu doole yépp mhm. dénk leen ko pour ñuy xool ñan lañ ci faagaagal même bu nekkee ne ñooñu am nañ intérêt ci Sénégal am na ci ñoom intérêt même si bu nekkee ne ñoo ñu amal nañ jëriñ Sénégal parce que sànq maa ngi koy wax soo xoolee liste ñu ñuy jàpp ay inspecteur des impôts ay inspecteur du trésor ñu jàppee leen ci ay textes yoo xamante ni bind nañ ko Facebook ak ñenn ñoo xamante ñoo soupçonné ne envoyé nañ xaalis ay jeunes mais loolu au nom de quoi. un vrai alors euh, Alpha pour jeexal euh, ci thème boo waxtaanee mbirum parrainage ak vie chère euh, la lan la. lan moo tax ngeen lan lan ngeen yaakaar ne moo tax Ousmane Sonko taxaw fi mu taxaw di continuer une grève de la faim boo xam ne ay avocats wam yi ñëpp wax nañ ne kii euh, si ça continue il peut perdre la vie.